exécutif am possibilité wala assemblée nationale dindi li pouvoir judiciaire euh, dogal loolu dafa garaaw mhm. moo tax d'accord ma ci rawatina ci loo xam ne nag et puis lan mhm. ñun dañoo diggoon waa réew mi mhm. la gouvernance vertueuse sobre et vertueuse sobre et vertueuse Macky Sall falu dekkal CREI yi ñëpp ne gongo ñu ne déet mu indi créé OFNAC def déclaration de patrimoine gën koo yaatal réforme cour des comptes Sénégal yi ni kii na gouvernance vertueuse bi foyewu ko waaye lañ ca seetlu mooy en réalité la CREI a été réactivée pas pour la la reddition des comptes mais pour une vengeance judiciaire contre Abdoulaye Wade et son fils et ça c'est inacceptable mm-hmm. waaye nag Sénégal ay Sénégal dañoo yow man dañoo ku leen nax la ñuy wut mm-hmm. ku leen nax la ñuy wut c'est-à-dire nit ñi tant que naxoo leen rek duñ la bëgg maanaam li ñu bëgg mooy da ngay seen alal jënd ci woto yu rëy costume ànd ak gàddu koor ñu wër la nga di ko ngay ngay neexale nit ñi ci li nga jël ñu ne yow yaay waa ji réew mi mel noonu. alors d'ailleurs même fi tubaab bi ñëwee co colonie traite négrière bi tubaab bi ñëwee di jënd jaam yi. Hmm. ay Sénégal yi seen bopp ñoo doon dugg réew mi di jàppi jaam di indi. tubaab bi bi mu di ñoo yoroon ni petal bi di ko xeexal. Hmm. bi tubaab bi xeexee ba xeex bi jeex ay doomu Sénégal ñoo toogoon fii maintenir l'ordre colonial. Hmm. ba 1960. Sénégal bi France di dem mu xool ki ko gën a nangul gën koo gën koo bëgg gën koo fonk mu jox ko Senghor mu ne nu deux l'an 2000 Dakar sera comme Paris booba nag boobaa léegi ñi yor réew moom France mooy seen xibla. Kaaba gi mooy seen Élysée. moo tax lu lu